mbokki safo 7 TV maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp di ñëw gën si dimanche 9 juillet dañ bi nga xam ne nag bi di Kylian yee ñagas kon nag kii di Kylian Mbappé dafa def benn interview di si ngàññee club bi di Paris saint te loolu nag neexul yenn jour foofu sa Paris ba juróom benn say jour jot nañoo contacter président bi

na Mallorca moom tamit signé ak Paris ba 2028 officiel na Thiago Mendes jóge na Lyon dem signé club bi di Al nekk foofu sa Qatar officiel Casper Dolberg jóge na si club bi di OGC Nice signé ak Espagne la jàll ak club bi di Real Madrid gannaaw naka bi nga xam ne signé nañu Arda Güler te ñu ko doon xëccoo ak FC Barcelone ñu ngi ciblé tamit beneen joueur bi nga xam ne Barça moo nekkoon si dossier am depuis lu yàgg muy Evan Fresneda daa nekk euh, ñu toll nii Real dugg nañ bi te bëgg nañ ko signé ñoom tamit Evan Fresneda ku fay 15 millions lu ko ëpp Real Valladolid mën nañ mën la ko jaay yeneen club yu su mel ni Newcastle Dortmund ren nag Milan ñoo nekk ñoom ñëpp ñu ngi woon si dossier bi mu toll nii Real ñoom tamit bëgg nañ am joueur bi léegi lépp mot na mujj na officiel Vitor Roque signé na contrat ak FC dem si weeru janvier ngir nag fekk ji joueur Barça yi Oriol Romelu moom tamit transfert foofu sa Barça léegi mat ndax Xavi Hernandez moo ko bëggal la boppam kon na Xavi Hernandez sàkk na si direction Barça ñu signé ko kii di Romelu nekk si club bi di Girona clause libératoire mi ngi toll si na ak club bi di Girona jóge si club bi di Bayern Munich foofu sa Allemagne kon na signé na si club espagnol bi. Angleterre la ñuy jàll officiel William Saliba prolongé na contrat ak Arsenal ba yeneen yu waaj a officiel mu yaa transfert u Declan Rice jóge club bi di West Ham ak euh, kon na ñaari joueurs yëpp ñu na euh, waa Newcastle bëgg nu mu gën nu mu gën semaine bi di ñëw officiel kii di Ishe euh, Samuel Smith signé na club bi di Chelsea jóge club bi di Everton mu ngi nekk latéral gauche mu ngi am fukki at ak juróom ñaar signé na Chelsea transfert mi ngi dikkee Chelsea 4 de livres sterling muy xaalisu Angleterre waa Chelsea dàkk nañu offre mi nga xam ne nag Inter de Milan moom lañ defoon pour Romelu Lukaku yeneen yi si mel ni nag Juventus bi di Al Hilal nekk foofu sa Arabie Saoudi bëgg-bëgg si euh, doomu Belgique bi waa FC Barcelone contacté ñu Chelsea pour mën a bi di André Santos nekk doomu Brésil kon na Xavi Hernandez

beneen gardien bi nga xam ne ñu ngi koy yee ciblé muy Yann Sommer bu Bayern Munich léegi officiel nag Christian Pulisic jóge na Chelsea signé ak Milan AC léegi lépp mën na signé nag Milan AC ba 2027 transfert ngi dikkee Milan AC 20 millions de livres sterling muy xaalisu Angleterre waa Milan ñu ngi yaaw gën ne seen bëgg-bëgg si kii di Boulaye Dia nekk doomu Sénégal bi nga xam ne nag Villarreal ñoo ko abalee foofu sa salaire neta na kon na Boulaye Dia clause libératoire bu toll si 25 millions d'euros waa Milan sa pare nañ pour fay ko ngir nag mun ko am Mason Greenwood bi nga xam ne nag euh, place am leeratul foofu sa Manchester United waa AS Rome dañ ko bëgg ñuy fàtte nag Manchester United ñoom tamit bëgg benn Rasmus Højlund nekk foofu sa Atlanta moo tax nag Atlanta bëgg a dugal seen euh, joueur bi di Rasmus Højlund ngir nag mun a Mason euh, na si euh, club bi di ak Atlanta foofu sa Italie waxtaan ngi bëgg a di Al Ahli négociation yi doomu Sénégal bi di Seny Dieng jóge na si club am di Queen Park Rangers signé ak club bi di Middlesbrough ñaataatu contrat la signé.

championnat Sénégal Ligue 2 programme vingt-cinquième journée tey jii si dimanche bi su 17 jotee ci CFC dina la lekk am ci FC Duc Port lay am Wally daan mooy am Mbour Petite Côte Jamono Fatick am Jel bu Oslo Kër Madior lay am HLM bu Dakar dina am Ñambour Demba Diop FC am moo wakam foofu la xibaar yi di leen jox dëgg daje beneen am si xibaar di leen ñaan ngeen activer notification pour jot information